Uh ahlan bikum xalifa sàll moom mënta jiite PS génn na bokk ndax fañ koo kajjoon dàq si du quotidien moo ñu ko xamal Abdoulaye Wilane na ñun waa PS fa ñoo am ay règlement ak texte yi ca la ñuy sukkandiku Vox Populi ne même bu dul xalifa sàll PS moom rayante xeex ñàkkante moo fa nar a xam ci kan mooy wuutu Ousmane Tanor Dieng du Wane na coow li moo ko jarut Aminata mooy wéy di jiite PS bañ amal congrès te bu secrétaire général Vox Populi na kon ciow li judd ci kan moy wutu Ousmane Tanor Dieng lu ji njaga Serigne Mbaye cham moy njaag a ah, setal Ousmane Tanor Dieng bim genné aduna ñetti fan lañ ca tek mu taxaw ci rajo yi naan kii koy wuutoo kaag nangam ciow li yeb mom la wal fajir yene kay na mo taxit yéen ci crise jafé jafé yu xajju jeex te bu ngeen moy tout sen parti fi lay doxé tas bu len di leer rek muy sen jamm PS nak buñ amul jamm ci benen walu ba njiitiram Macky Sall lu njaga moy ndax tante bëgg ramasser capturer PS ci lolu la nek tribune yene kay moñu ko xamal professeur Moussa jaw xam a màcc ci wàllu politique ci vox populi nee na Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne Mbaye Thiam dana jafe lool ci ñoom ñu jubale waa PS yi ndax la ca dam mu toj yàqu jafe-jafe ya moo bari 24 heures yéen a kaay na PS daal xam nga fu ñu toll pile u face maître Moustapha Mbaye ne fa ñoo war a bàyyi ab parti ka ko jiite bu fi jógee ka ca toppoon ñu bëgg a forcer ñu jox ko ko kii jiite daal ñëpp ko war a tànn tànn Aminata Mbengue Ndiaye nag chance la pour état bu Sénégal gis-gisu Dakar Times la Pape Babacar Mbaye moom ma ngay sàkku ñu jéggal Khalifa Sall mu génn ñiy wax nag naan Khalifa bu mu bind grâce soxlawuñu grâce ñoom nañ dem fekk Khalifa Sall ca kaso ko jàppale ko dañ ko xalaat kaso fa métti kon nañ bind ñu jéggal ko kàddoom yaa ngi ci l'observateur buñ ko defut mën naa yàgg ca kaso ga de nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy Amadou Wuri Diallo muy waaja ñu jàppoon tëj ko kaso ci coowal médicament yu bon garab yu baaxul ca dëkk bu sell ba Touba Mbàkke nañ def ba njiitara Macky Sall jéggal ko la ko génnee kaso xaalis ba mu jox ko doon jàppale lépp la l'évidence yéen a kaay xëy yeggee ñu l'observateur na ci moom xamoon na ne day génn kaso di mës na ko wax sax benn gardien ko coow lee bari rek waaye fay mu jigéen na yéen a kaay bi nag kon nag loolu mooy scandale tooxi doona bu mag ci wàllu atte yow yaa ngi jéggal koo xam ne atte guñ ko avocat pharmacien yi maître Babou ne am nañ lu ñu naqari de lii nag moom la ñu duppee mafia wuuri jàllo nag jamono ji ma nga Guinée mandat dara lañ ko dóor ngir jàppaat ko te moom dëkkut Guinée di sénégalais la Kaolack ndàngaan fa la juddoo nay leer laneen lu leer ba mel ni jant tusubaar mooy waaw seetal fukki weer a ngi nii ña ngay gor garab ya jaarale ko gambi daggete ko dugal ko ci por ba yóbbu ko bitim rew nam xamé won ci jamono jàmme la amé ci jamono baro ba tax gañu ñaawlu ko rawatina jëwriñ ju ñu dénk wàllu alam bi ci Sénégal Abdou Karim Sall le quotidien yéen kay kaay ñu ko xamal lam ñu xamal mom rew mi yéen kay moy mooy compa waré ndekete yo wakansam yi Dakar gi lako défé l'évidence yéen kay na suñu jëwri ji Amadou Ba njiit réew bu Mauritanie dalal nako mu yobbu message bu njiit réew Macky Sall ci jamono joju douane bu Sénégal ma ngay sakku alamam lu tollu ci ñaat timer ak ñeen fukk ñaat ñetti milliards ci ñaari kuréel yu ñu joxoñ baaraamu tuuma jëm ca coowal dorog ba ñu téye ca port autonome a na la mu bëgg mu leer mooy doxalinu élection wote yi ci Sénégal a ak évaluation bañ ca war a xamal ngir ñu juboo ci wàllu wi ni mel na mu meloon moom Ahmed Amar njiital NMA ci baax ci jikko ci doxalin moom la source a yéen a kaay di méngale ku ñu yónni woon ngir mu dimbale askanu Sénégal aayaaw seetal étudiant yi bus xaalis la leen daan dimbale les éco yéen a kaay na ko du ñooñu rek la dimbale de gis nga Bougane Gueye bi muy taxawal seen TV Ahmed Amar vingt-cinq moom la ko may te jeexagut am na benn étudiant bu feebaroon ñu war ko yóbbu bitim réew faji ko cinq la ko jox naka noonu may na biis étudiants yi nga xam ne fa ñoo handicapé Déthié Fall na ko ma yokkal leen ci hôpital international moom la bëggoon a tabax Dakar Serigne Mboup njiital CCBM ma ngay delloo taxawaayam bu rafet ak njëriñ li mu amaloon mi mi ngi ci enquête yéen a kaay Abdoul Mbaye ne monté ba muy door métti woon na de palaasam jënde ko bato di liggéey ñàkkante gëm boppam ba tey mu nekk milliardaire def na lu baax tey génn na àdduna ñu fas yéene koo denc ka ñu denc ca loxoy yoon Guy Marius Sagna ngir dànkaafu wàllu terroriste te loola xamul tey nag enquête yéen a kaay ci la xëy amal gëstu bu yaatu coowal terrorisme ñi ci jàpp ba tëj leen kaso gi lépp la ñu yéen a kaay bi fàttali l'évidence yéen a kaay di ñu xamal na diwaanu Kaolack ndàngaam jot nañu fukki milliards ak ñaar yu toftal juróom-ñaar téeméeri million lépp jëm ci wàllu assainissement Kaolack ndàngaam askan wa coono bañ nekkee ngir yàlla mu dëñ direct info moom xëy màggal ak daaru salaam ak maam Cheikh Anta Mbàkke borom dërëm ak ngërëm ku jege woon ku tedd ki déggaloon ko lool waaye ku amoon may la moom tamit kilifa gu mag moom la ñuy màggal tàggat yaram Aliou Cissé ñeen fukki jongante ak juróom-ñeent la def senegal am ndam fanweer yoon ak benn dugal fi juróom-ñaar fukki bii ak juróom-benn juróom-benn fukki footballkat ak juróom-ñeent moom la jëfandikoo ci ñeenti at waaye dugal nañ ko ñaar fukki bii ak juróom-benn loolu mooy bilan bi ñu record yéen a kaay yeggee la mu a kaay mooy moo tax ñoom duñ dugal li deux daloon 2017 moo ñu dal 2019 di nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy borom xar ga fuufa sëriñ am ñaanal Yékini tuxu nañ ña nga ca Eumeu Sène nee nañ Eumeu Sène dana mbuqi Modou Lo ba mu tëdd te fañ koy belende kenn du ko mënal dara roi des arènes Eumeu Sène fay continuer ak moom ba mu dem à la traite l'évidence di ñu xamal ne am na benn dawalkatu Jakarta xab xoto ko fël mu faatu ñàkk bakkanam Allah yëf yaa nga amee ci diwaanu Kaffrine niki démb yéen kaay bi ne lu ëpp juróom benn téeméer ci ay dawalkatu moto Jakarta fa ñuy dee ci accident waa ma ne loolu na de nañ ci wax lu ko mooy camion yeeg oto yi danañ Cara,